ci situation bi nga xamanteni jamono ji mo nek ci réew mi yaakaar naa ne tey ki ñuy dalal ci grand entretien kenn dootu ko présenté ci Sénégal ginnaw ràññee nañ ko bu baax par rapport ak ci li nga xamanteni mom la doon exercer mu nekkoon ci acteur culturel doon yëngatu ci benn branche bi ñi naan musique ñi gis ko mu donon nit ko xamanteni dafa engagé woon amoon dévouement amoon loo xamante ni dafa am benn persévérance par rapport ak ci li def muy ngëm-ngëmam ñu xammee ko aussi ci ay constance am ñu xammee ko ci dëggoom ñu xammee ko ci li nga xamante ni maanaam day jël benn position boo xamante bu radical la mais fenn la ko jëmale muy ci askan bi ginnaaw loolu ay jamono di dox yàlla bi dara teewul jël ko dugal ko ci langue politique bi ba tey mu occupé poste conseiller municipal ci poste conseiller municipal boobu nga xamante ni ci lay yëngu foofu ca Rufisque muy tëngee di dëkku Mame Coumba Bane moo tax ñu am mbégteeg bànneex tey dal ki nga xamante ni mooy di maam góor jazaka waaw dalal ak jàmm Tange maa ngi lay ziar di nuyu waa Sénégal yëpp eh, di nuyu nag waa Tëngéej bi nga xam ni foofu laa jógee maam Kumba Bang nag moom moo nekk ndar <laughs> moo nekk ndar Kumba Bang moo nekk ndar waaw ñun ñooy Kumba Lamba Kumba Lamba waaw may Kumba yi la rek <laughs> waaw may profité ci occasion bi di nuyu tamit eh, surtout maam Kumba Lamba yëpp eh, di ñaan tamit émission bi nga xam ne ñoo ngi koy def Sénégalais yi nga xam ne ñoo koy déglu jële ci loo xam ni njëriñ lay doon pour pour ñu ñëpp. kon yaakaar naa ni ñoo ko dégg ndoo kennatu ko présenté ci expert médiatique u Sénégal muy Mame Gor Diazaka Mame Gor jamono jii ñu tollu yaakaar naa ni politique la ñuy waxee mais comme actualité moo ñu dab tey dama bëgg nga jox ñu sa xalaat ak sa gis-gis dañuy gis ni que depuis un certain temps dafa am ñoo xamante ni dañuy woote seen bopp société civile suñu ñu nee société civile nak maanaam ñoo xamante ni dañu waroon tëddee njaaxaanaay maanaam nekkal fi uniquement askan bi mën nañu cité ku mel ni Alioune Tine mën nañu cité ku mel ni Sidi gasama démb ñu gis leen ñu dugal benn euh, euh, autorisation pour que ñu autoriser leen benn marche dem ci walu libération ki nga xamanteni moy mooy Sané bok ci membre Y'en a marre ba paré bok ci mouvement F24 bi ñu gis ni ka marché bi ñu autorisé le comme une marche pacifique mais marché bu mu ñëwé tay dafa melni ni gi daan waxal sa soxla la objectif bu taxoon ñu demander autorisation bi ak tay lañ fa indi ñu fi indi yeneen cas yo xamanteni yoon lañu amal problème ay kaawu Ousmane Sonko ay kaawu détail yo xamanteni amu fa ban jàngat nga ci am par rapport ak li ñuy wax. wa c'est que dama bëgg Sénégalais yi njëkk ben question bo xam dama koy poser ki nga xamni

tey ñoom li ñooñu wax ba dem kaso ñoom lu tax waxuñu ko. moo jaaxal ñëpp donc nag bu ñu sonal nit ñi ci ay naan kii Ousmane Sonko duggaguñu ci ay affaire am. parce que dëgg la indi nañ fa ay kaawam. Mhm. mais man li may ñaan état Sénégal bu ko kenn bàyyi. ñaar dërëm jotu ko moo gën a wér dërëm. Pape Alé Niang nax na leen ba génn ci loxo justice. Mhm. naan ay damay grève de faim damay def la lii ba mu ne sama ndigg day métti dem ci aji Sarr. ab bi Adji Sarr bi bi coow li déclenché toog na fi deux ans yoo xam ne ay maajeeri lay sànni di jaabante yoonu Casamance di campagne ñaar dërëm jotu ko mhm. nañu te dëgg mu mel ni ndiggam mësta metti léegi ñu jàpp ko tey fii ñu taxaw naan ay insuffisance rénale ak bu ko kenn bàyyi Ousmane Sonko c'est un nihiliste nit la koo xam ne amalul njëriñ askan bi xeex leen xuloo leen taal réew mi yàq ay business jàmbur la fi nekk woon moo tooñ askan bi li àqu askan bee ko dal 44 booy ñoo dee ci affaire am bii bu mu fontoo Sénégalais yi état Sénégal nag soo leen bàyyi Ousmane Sonko di ngeen tooñ Sénégalais yëpp bu ko kenn bàyyi détenu la bu dee ñu dem suuli ko. tey ci biir voilà ci biir manipulation boobu laa bëgg ñu waxtaane ko parce que teel nga dugal Ousmane Sonko ñu gis ko fii mu déclaré woon def na grève de la faim pendant 72 jours. waaw mu commencé gagner ay fièvre une semaine le kii di euh, avocat bobu di Crescio Dorli annoncé dara doxul mu baye grève de la faim bi mu ñëwaat né reprendre la grève de la faim bi 9 jours ñu né dossier médical Ousmane Sonko du fa fuité ci presse bi alors que des bu mu né dañ ko sorti ben liquide ñu dossier médical am dafa né c'est quelque chose de confidentiel est ce que amul ben complicité tay entre Kinga nga xamanteni moy avocat Ousmane Sonko yi ak ki nga xamanteni moy Pape Alé juste pour faire la pression manipuler nit ñi indi ben ay détails yo xamanteni ci biir dossier médical bobu pour que ñu leer may askan bi. lima bëgg daal leer na Tange Sénégal ay médecins yu xarañ ñoo fi nekk ak ay juges yu xarañ Ousmane Sonko day tapalé sëriñ bi dafa génn fii Euh, gàmmu Tiwaawan mu taxaw mu ni leen waaye yeewi askan bi bu ñu demee foofu waa day feebar feebarlu tëdd te sëriñ bi man ay waxam laa gëm mhm. ndax kilifa gu toll noonu ak mbooloo mi ko topp mhm. ak fi mu toll ci Sénégal ak niveau bi mu am te du waxantu mhm. donc Ousmane Sonko ab avocat dalay layal pour nga rëcc da ngay gis nit mu rey nit avocat ñëw taxaw ni reyul dëgg te même bu ko ci tegoon bëtam day taxaw ni reyul ab avocat kay lu nekk client am rek lay wax lañ koy rek lay wax dama ni ab avocat bu sañoon procès bi du mën du mës a jeex. Ah pour muy am xaalis. d'accord ku dof nag ay avocat jël la di la dugal dëgg la man avocat yi seen liggéey dama ko respecté mais li may wax moom mooy ab avocat bu sañoon client am chaque jour da koy jël muy am xaalis Ousmane Sonko damay wax sénégalais yépp Ousmane Sonko moo gën a wér dërëm ñaar dërëm jotu ko su fekkee dafa grève de la faim moom moo xaru fii tey ji feebar ki feebar naturellement nga xam ni dafa am jabet wala ñu ne kii dafa am tuberculose wala ñu ne kii dafa sida wala ñu ne kii dafa am benn feebar boo xam ne typhoïde wala dafa am lii kooku feebar la boo xam ne naturellement la ñëw ci moom mais ki nga xam ne dañ ko jàpp mu nekk ci des liens de détention te lien de boobu mu am noonu moo taxawoon fii naan booy génn leen xeex ku dee sa yaay juraat di taal réew mi di yàq dëkk bi yàq ay business jàmbur ay nit dee ci kenn du ko bàyyi buñ ko bàyyee tooñ Sénégal yépp bu xiifalee ba dee gis tey nit ki ni ñu ko mën a jàppee yóbbu ko kaso gis nañ fi benn benn kii ci affaire Karim Wade ñu jëloon fi Bourgi mu tëdd ci civière ñu teg ci tribunal bi ko até nonu mu ni ñu ko defoon koku Ousmane Sonko gënul koku ah. ne tëdd ci si euh, kasso bi fofu ak fa bu ne dafa kifal su déwé ñu jël ay percal laxas ko dem suuli ci ko mais mu jeex ñu dé Ousmane Sonko gënul la Ousmane Sonko rey na 44 personnes mais est ce que tay rôle bi nga xamanteni avocat yi malgré yaangi saluer sen liguey est ce que avocat yi gënnu ñu ci walu droit manam ci côté xaliss duggu ci système de manipulation parce que dossier médical tay je crois que docteur bi lay saytu moo ko war mais pas un avocat ñi gis ay journaliste ku melni ni Pape Alé yenn plateau yi aussi ñi gis ni que ay journalistes yoo xamante ni dañuy favoriser benn manipulation ak loo xamante ni du dëgg di ko teg ci boppu askan bi est-ce que ñooñu aussi tey dañu benn complice. Ousmane Sonko kii euh, Pape Alé Niang fi mu toll ni taxawul taxawaay journaliste. Hmm. moom militant Pastef la. Hmm. Ousmane Sonko la faral moom lay jàppale. Hmm. nañu waxante dëgg. tey man je je respecte métier bi nga xam ne moom lay def journaliste la ay temps ñëpp a ko respecté woon. mais tey dafa am fu mu far. Ousmane Sonko la faral. Ousmane Sonko da doon taal dëkk bi. jóge Casamance ni mortal combat ni day jógee kii Casamance pour ñëw déloger Macky Sall uh-huh. le président de la République Sénégal loolu amna ay dëkk yo xamné bu ko Ousmane Sonko défon dañ koy pandre amna lo xamné xam ko def ci réew mu normal japp nañ la yaangi ci kaso bi demal nga am jom nga tok fofu bu sa 2 ans matin nga genn mais bo fi topé pap Alé comme temps il est passé xifal na fi ñu bayiko ñoom toog mën nañ toog def seen dil ñu ne waa comme Pape Alé defoon na ko mu jikko donc nañu essayé mu def mais li ma bëgg a wax moom mooy ñu ngi wax justice sénégalaise di ko wax képp koo xam ne autorité nga te mën ci lii dara mooy Ousmane Sonko suñ ko bàyyee tooñ Sénégal yëpp Sénégal a ngi neex plage yaa ngi fees talibaa ngi féex boîte de nuit yaa ngi fees borom salon de coiffure yaa ngi liggéey ñëpp a ngi doxi seen soxla te Ousmane Sonko poñe na fi dëkk bi benn deux ans boo xam ni kenn mënul doxi sa soxla booy di ci profité di sàcc ay ay sàcc rek la créé ay foofu gisoo fa laxisme bu état parce que benn doomu aadama bu mel ni Ousmane Sonko poñe dëkk bi kenn liggéeyul nee nga léegi booy ñi ngi plage liggéeykat yaa ngi liggéey transport baa ngi mbër yaa ngi bëri ngi bëri mais est que gisoo benn laxisme état benn Ousmane Sonko rek war a mën a bloqué lépp loolu non c'est xam nga ay jamono est ce que état ragalul ah, ah, non du question ragal ay jamono da doon wax gars yi naan ah non noonu mais bi ñu demee ba xam ni léegi dañ ko bay bayal ba nga xam ni dem na ba jéggi dayoo ba sénégalais yi door comprendre ni kii dañ ko bay bayal état bi mu jógee pour lijjanti ko amul ci benn deux mois lañ ko lijjanti Casamance jóge ñu ni ko coppet yóbbu këram barricade ko benn moment kii ni ko coppet daaj ci kaso bi léegi période bi nga xam ne sénégalais yi dañu toog lu yàgg xeex di am booy dañoo demoon ba affaire bi nekk routine ah. ñu tàmm ko booy tàmm génn di sànni mm-hmm. mais booy dañu reposé dañu dem ba dañu noppalu quoi noppalu ci lacrymogène noppalu ci xool ñaata booy ñoo fi nekk ay handicapé am na ñoo xam seen bët tuuru na am na ñoo xam ne seen loxo dagg na est-ce que Ousmane Sonko moo leen di posé waat loxo gisa man su may dox si dëkk bi ba gis ko takk brassaaru Sonko uh-huh. dama lay xool yërëm la <laughs> Ousmane Sonko c'est un nihiliste Ousmane Sonko mbalit la nit ko amul njëriñ la mbalit Ousmane Sonko mbalit moo ko tane ci àddina bi amul njëriñ ah Ousmane Sonko du nit ku ñu war a bàyyi muy dox ci dëkk bi. tey waa Pastef ne moom mooy solution moom moo war a changer Sénégal lépp lu métti Sénégal moom moo war a tax tey immigré yi nekk Europe tey li tax ñu topp ko nee nañu su Ousmane Sonko nekkee président 6 mois dañuy dellu soit Sénégal. Ousmane Sonko mënul gérer boulangerie Ousmane Sonko mënul gérer boulangerie. boulangerie Sonko kaña moo ko gën ci man boo boo tegoon kaña. teg Ousmane Sonko ma jël kaña gi bàyyi mais pour lan Sonko kaña mais kaña kaña moo tane Ousmane Sonko Ousmane Sonko amul njëriñ. mbalit la. d'accord dama lay wax man li may wax nii waxuma ko parce que dama ko bañ. Ousmane Sonko mbalit la. amul benn njëriñ lan la jàngale ci réew mi. saaga sa kilifa xeex. dépassé bu len déglu sen yaay bu len déglu sen papa ku len di wax tok len bu len tok mais Ousmane Sonko dafa yak xalé yi Ousmane Sonko mbalit la nonu Sénégal la Ousmane Sonko amul pour ñukoy jema sax ay négocier man suma togué toogee la tanse dama la respecter motax ma ñew sa plateau sax nga wax Ousmane Sonko ma ci wax mais Ousmane Sonko mbalit la amul kenn ko Ousmane Sonko nit sax warul wax ci mom Ousmane Sonko du nit télévision yëpp ñi ngi wax ci par rapport ak comment dossier bi fi waaw yow day bay ban comment ñaar dërëm da ko jot Ousmane Sonko dërëm jotu ko moo gën a wér dërëm. ñaar dërëm jotu ko. d' kon yaakaar naa ni ñu ngi nekk ci. ñu santoo santoo yi recevoir euh, Mame Gor euh, Diazaka di conseil municipal foofu ca Rufisque Est Mame Gor tey dafa am ñu bëri ñoo xamante ni leen jàpp ci kaso bi souvent ñi dégg ñi nga xamante ni droit de l'homme si di euh, société civile tey marche bi sax bokk na ci. bul wax droit de l'homme ay naafeq lañu. c'est pas des man naafeq laa leen tuddee. parce non tey dama bëgg est-ce que yow. ñoom li ñooñu wax nañ ko wax. man gisuma kenn ku ci nekk détenu politique ñoom ñëpp dañoo loo xam ne waruñu ko wax ñu jàpp leen. bu ñu fontoo sénégalais yi. ñooñu ay noonu sénégalais yi xam nga dama lay wax benn affaire dafa ñoo xam ne ci fitna la ñuy dund ci fitna la ñuy am xaalis. bu Sénégal nekkee ci fitna dañ ciy am xaalis. est-ce que comprendre la donc ñooñu bu ñu sañoon fitna du jeex ci réew mi donc nag tey ji état dafa ñun état Sénégal damay profité ci occasion bi di féliciter la justice sénégalaise ak police sénégalaise ni ñu aaye ak ni ñu xarañee fexe nañ ba kenn def defloowu leen faute ñu lijjante tànn parce que dafa am ay ñoo xam ne ñoo nekkoon tête de pont yi di taal dëkk bi ñu dem ni leen kii daaj leen ci kaso bi ba ñu leen jàppee ba léegi réew mi dafa léegi nag ñoom moteur